gars yi damaa war a génn aw ma taa deux mille cinq cent personnes bu ko matul du ma commencé deux mille cinq cent personnes te bu weexee ba yeex ma def ko trois mille personnes mille cinq cent personnes bu ngeen ko matul ci baar bi du ma te ngeen tàppate écran bi mu ñëw vingt mille like vingt mille laa soxla laa yi vingt mille waxuma la dix mille de vingt mille waaw boos li mu nekkee dañ ko cee bàyyi kaa yi am ñoo bëri ci dëkk bi tant ko juguma ci dëkk bi du arrêté réew mi moomoo leen ko réew mi moomoo leen ko réew mi bugguma ku koy yàq bugguma kuy salfaañoo réew mi di jaxase réew mi j'aime pas bugguma loolu bugguma loolu réew mi kenn du ko yàq lu tax ngeen dara yàq réew mi yéen réew mi réewum aadama la man maa moom réew mi kàppoo borom réew mi lan may woowee yaa moom dëkk bi bàyyi leen ma ma seere ba dëkk bi ngir yàlla maa moom dëkk bi bàyyi leen ma ma seere ko luy problème bi cottu nday buus ak ba ba eh, kii. Eh, eh, non man gars yi man boos tuñam yi ah barki alxuraanul karim comme tuunu ganaar kenn xamul lu muy nuróol non boos ku katt ndayam la quoi kii moom baaxul ci société bi koo xamante nii man boos xam nga yéen euh, gars yi tey ñaari kaa lay kaa benn bi kaawuma ko di waxtaan la diggante Jessica ak Alex mooy premier cas bi Jessica ak Alex deuxième cas bi mooy boos boos ngir yàlla yonent bi boos sonal nga sa kanam gi di benn silu bu maçon lëjal nga nit ñi boos mënoo bàyyi sa duul yi topp laago yi ñu manqué ñi borom cër yu jëkk yi borom tànk yu dagg yi billaay yaay doomu xaram képp ku lafañ nga yenu kon ñu ndoxum siti ku rëbët bàyyiwuleen ne ñu baat ñi rek lay gis borom bë borom bët yu parti yeeg borom dam benn dambal yeeg moom na nga na moom na sa cër dagg rek mu topp la nga mënee jël ndaw soosu noonu teg ko ci plateau bi boos naan sama yaay la sama yaay dafa jëkk sama yaay nii ba ma koy jët yaa mën a duul da ko doon utiliser di di xoolal ba mu ba ndaw si ba mu paree ci ndaw si dafa sànni ndaw si daal di takk ummi ah ñu ne takk gim takk ummi nag di def ay séeréem ak ummi bàyyi bàyyi meer bi meer bi looloo ko merloo doomu xaraam ji xaalis bi mu doon dem ah ci plateau yi yëpp xaalis boobu la jël takkee ko ummi ci yalwaan gi rek moo wax ku fi waxati naan ummi dafa sax dafa soxla prothèse su tànk bu ma kattee sa ndey ba xam ban prothèse su tànk la ummi war a soxla ummi mën loo ngi daan mu ne ñongu ci fenêtre bi yow nan ngay yore benn tànk yow yaa gën a gaaw sax ñor yow fa nga ne ñongu foofu golo mënu faa yëg man dama faa a yëg fenêtre bi fat-fat ngëb na tànk bi ba noq ko ci fenêtre bi jóg taxaw nga ne da ngaa soxla prothèse waaye ñi kun yab yéen bu leen ñu yab léegi nag déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax a baax a baax a baax a baax a baax boos benn mbokk boos kenn ci doomu bàjjanam yi moo ma woo téléphone man Adama ne ma boos léppam ay dóor la li may def lépp day nax sénégalais yi ba may woo ci appel nag dafa dugal koo xamante si nii nekk na ci appel bi mu ne ma ci jëmmi Serigne Babacar Sy waatal ne appel bi doo ko enregistré ma ne ko duma ma ko enregistré parce que man du ma woo directement parce que bu nu ma woowee directement jàpp nañ ma damay enregistré mu woo koo xamante ni rus naa ko kooku woo ma téléphone bi mu dugg ci appel bi nee na ma boos takk gii muy takk ak ummi da nga faa gis yaayam da nga faa gis papaam ah nee na ma takk gi dara nee na ñoom dañuy di lekk nee na takk gi dara du ci dëgg mais man takk guddul dëgg boo xamante si nii laabaat am na fa ah boos mii lu luñ ko waxal duma ko gëm de lu nu waxal boos duma ko weddi xam nga lu tax parce que boo say wër di yalwaat di mbubboo nit ñi gars yi nan waxante dëgg. mu ne ma takk gi carrément amul ma ne ko ah sama xel ñaaw na de ndax man gisuma fa papaam ba tey kenn xamul koy papaam ñu daal dañoo gis rek muy tëddee ummi di kat di defar tànk bi di teg fu mu dem yenu ko yóbbu dem na ci Jessica yenu ummi yóbbu naan dafa soxla prothèse prothèse su tànk la soxla ummi il n'est pas boo ko waxee nag jooyam yu ñorul yi nag mu topp ñayitu ñi waaye boo sa katt ndeyam boos moom amul luñ koy waxal sénégalais yi di ko weddi ba ma fi génnee di wax ne kii juru ko ñëpp dan ma doon saaga ndey bii benn mbokkam moo ma woo ci appel ak benn kilifa ne ma boos takkul ummi dañuy def bës ñoom ñaar mais bës boo xam ne man de bës bi jaaxal na ma da ngay tëdd ñu nangu la ñu lay kat naan la papa chéri taalal cuuraay takk gi maanaam même bu nekkee takk tamit du takk gu assurance déedéet du takk gu baax bala nga xam ne takk gi baaxul ëllëg. ñu ne ummi am na prothèse su tànk ummi bu amee prothèse nga gis boos wër plateau yépp di jooy da koy bàyyi day wuti keneen ku cëkk wala ku laago wala borom biir bu dox wala borom baaraam yu cëkk buy ummi di am prothèse mu koy bàyyi wërsëgu ummi bi yépp wërsëgu boos yépp mu ngi ci tànk ummi bi wërsëgu boos bi yépp ci tànk bi la nekk bu amee prothèse mu ñàkk ko moom kay tànk bi nay cëkk rek lu mu gën a gàtt di ñëw ci data bi boos jël loolu lay wër bos moo doxaan ndeyam gars yi wuyu ma bëgguma di wax ngeen naan ma ay ay waay ak ay ndeysaan ak loolu indiwuma fi tey da ngeen maa jox raison ba ma xam ne damaa am raison bàyyi leen bu ma leen di wax ngeen koy weddi man lépp lu ma leen ma a wax teg ngeen ci seen bët li tax man Adamo du ngeen ko jox cër bi mu am jot bi ma am ak fi may jëlee information lu tax man du ngeen ma jox sama gëdd. li tax man cër bi ma war a am man aadama du ngeen ma ko jox chaque jour da ngeen di ñëwaat daan ma boos à raison boos wax na dëgg parce que man li may wax da ngeen ci dul bàyyi xel du ma waxantu ci réew mi 7000 personnes mënuñu maa teen ma nekk fii di wax rek du wax lu ne di dindi ci réew mi donc nag déglu leen ma bu baax sama kàddu yi laa bëgg mu leer mboos mii benn bokk moo ma woo téléphone dugal benn waay waa ji ne ma taalal sa vidéo ma ne ko mënumaa taal sa vidéo mu ne ma day ragal nga enregistré ko ma ne ko man duma enregistré kooku kilifa la de mu ngi ci appel bi ma ne ko barki Serigne Babacar si duma la enregistré Serigne Babacar nag laa waat mu ne ma est-ce xam nga ne takk gi ni wax ak diggante umeeg boos amul ma ne ko ah mu ne ma waawo te su leer laa ko teg dangaa gis yaayam dangaa gis papaam yooyu dangay gis fu mu doon takke ma ne ko ñun vidéo yi leen gis ñu ne ñu takk na ummi video yi leen gis ñu ne ñu takk na ubbi waaw ñee ñuy def seeni laabaan comme que yaayu jàmmoor lay mbubboo kay teg ko de mooy yaayam boos mii luñ ko waxal kenn du ko weddi nii da la kaa bi demee boos ay waxam fi mu jër nii jërëtu gëm yéen ñëpp da ngeen koo yërëmoon ci yaay ju jël sama yaay daa cëkk tànk yi matul sama yaay dafa feebar kanam gi daa manqué nangam gaa yi di dugal léegi wéef yi di dàq 77 nangam nangam mooy sama wéef ñu dimbali sama yaay xoolal yaay ja tey nee na duma ma yaayam juruma ko def ma doon bubboo rek séeri lan ko doon def di dóor nit ñi mboos mii lu mu ko waxal sax kenn waru koo weddi man koy yëg fii di weddi li ñuy waxal mboos ma xam ne doon it mboos a gën a katt ndayam ci lu yàlla sàkk boo sa àdduna nii nga ko mën a jàppee yow sa àdduna dóor rek.